de recherche bu nekk fële ca euh, Ziguinchor gendarme yi ba mu ñu ko téye ci enquête bi moom avoué na crime bi nga xamante ni moom moo ko def di lu doy waar jigéen bu nekk ci euh, ci ay weeram nga daal di koy faat faat bu bu doy waar bi noonu euh, abu en tant que sénégalais mbir yi doy na waar c'est vrai que c'est pas la première fois mais quand il faut ñu sàkk ci ay pexe daal waaw loolu peine de mort moo war ñëw mm-hmm. loolu rek mooy règle yi kaa peine de mort moo war a ñëw kii bañ ko jàppee dañ ko waroon faat ci saasi ci saasi lañ ko waroon faat wala bañ ko jàppee waa dëkk yëpp waroon a màbb fekk ko ci police ba génne ko faat ko wax ji jeex ji jërul di sonn da koy tëj di ko dundal muy lekk di naan di noos lu mu fa tëdd lu mu yàgg-yàgg <laughs> mën na jékki-jékki xëy génn fi Sénégal gis nañ fi lu ne mais bu doon ko faat nit ci anam yi ñu jàpp la taxawal la ne la tuy nga ne këpp ah, buñ ko defee benn yoon ñaari yoon ñetti yoon mm-hmm. bala ngaa reyaat ne di nga ko xool parce que dund dafa neex de. mais c'est que peine de mort dafa ànd ak ay loi yu ko war a accompagner parce que peine de mort c'est pas aussi simple que ça parce que déjà man bu fekkee dama jàpp ne dama da faat ku ma jege. ak réew mi ni muy doxee jaay doole bi mën naa ci bañ am benn preuve bu wane ni kii dafa faat bakkan tuumaal nañ fi nit ci crime mu dem tëdd kaso boo xamante ni def ko imagine kii tëdd 14 parce que dañu ne dafa def crime te def ko. erreur judiciaire fépp lay am États-Unis bi ngi ñuy bàq seen justice day am erreur. Mhm. mais bii du erreur xam nga bii moom leer na. ah mais wa loi bi laa leer moom d'accord loi bi daal nañ ko mën a encadrer mooy bu firnde woon ne yaa ko def te yaa ko tey. waaw ñu faat loolu dafa ànd ak bu sa ma sa waay. parce que mais ñaata nit ñoo nekk camp pénal bi di tëdd. ci ay crime li leen li leen tuumaal. gis sa ñoo tax Sénégal du neex a régler. parce que dañuy dem ci <laughs> sentiment. man du ma dem ci sentiment. ay sentiment war na man damay xool lii war naa am wala wërta am. Oh, man ak jigéen xoolal. boo ci defee naka suñu man xam man xam man damaa far. man jigéen man bu ngeen bu ma la fekkoon ngeen di jotee rek man ci kan ci ginnaaw man ci moom laay ñëw féeteel. parce que ñàkk fayda la. amul doole yaa am doole. nga bàyyi ko yow nga ñëw di ko assassiné. man am na yoon bu ñu la ci tuddee man automatiquement gis nga coowu jigéen bu ñu la ci xasee tuddee yow góor. pour nga am dëgg ci man. noo di ma indi lu leer nañ naññ nañ naññ naññ bu xamee lëndëm rek. dama naan yaa tooñ. Mhm. moo tax man nekk àttekat parce que dama far ak jigéen. d'accord ñaar yi moom bu la ko jigéen tuumaalee séram bi bu ne yaa ca dem wala yaa ma violenté am nga problème boo ñëwee ci man parce que nag lu wér wóor jigéen bu ne yawa rek yawa bu ne yawa yawa mhm. fa may wax nag nit ñi xam nañ. dof dof lu gi rek ñu bàyyi ndax fi nga ko waxee moo baaxul si teew fin fin émission nga junjee loolu bu doon ci début bi nga ko junjee duñ ci wax <laughs> non mais c'est en fait euh, man da man man si fee bi nii man dama bëgg waaye ñu tëj ko giiru dund ça on a disconvient même pas. loolu benn beneen aspect par exemple beneen aspect bi maanaam erreur oh. judiciaire yi ngay wax li mu impacté conséquences yu négatives yi muy def yàq àddina nit dafa dafa dafa doy waar parce que wax naa la ki mu fi jël keroog muy Moussa Ndiaye bi nga xamante ni Pikine di doomu Godzilla di taawam Euh, crime lañ ko accusé benn crime boo xamante moom laalewu ci ndax après yoon moo ko yoon moo ko yoon moo ko setal yoon moo ko setal laalewu ci ñu tëj ko si 14 ans yàq presque viom perpétuer lañ ko lañ ko lañ ko bëggoon tëj bi si bi mu njëkkee taxaw après lan la tëdd 14 ans te defu ko donc dama ni loi bi bu ko doon def tey mais dañ koy accompagner sinon dañ sànq doomu jàmbur si àll bi rek euh, Bintalaay mm-hmm. euh, peine de mort dañ ko war a indiwaat Oh. balaa peine de mort bi damay mhm. dugg ci information ki nga xamante ne mhm. moom la ñu faat muy Awa Cissé mhm. Awa Cissé ba ñu ko faatee c'était juste après la tabaski parce information bi maa ngi ko doon topp ak euh, la présidente des femmes bi nga xamante ne moom mooy xeex jàmm foofee ca diwaanu mhm. euh, Casamance. Mhm. démarche yi nga xamante ne ñu ngi ko ci doon def série de manifestation yi nga xamante ne génnoon nañ di ko def di réclamer justice gis nga mhm. Awa Sarr mii. après la tabaski la ñu ko faat te ba ñu koy faat c'était la nuit mu tëdd moom ak ñaari doomam ci kaw lal bi ci la ko waa ji fekkee foofu. jam ko ay paaka ba mu mujjee ñàkk bakkanam tombé moment boobu mu ngi nekk en état de grossesse jëkkëram dañ ko ci tuumaal moo waral ndawal section de recherche bu Sigicoor mm. dañu mm. ko dem jëli jiwaat ba Gàmbi gi nga xamante ne fa lay liggéeyee di ko entendre ci mbir mi parce que dañu njortoon ni mm. loxoom génn ci mais ki ko ray d'après section de recherche mm-hmm. ci téléphone portable bi la def kem tolluwaay kàttanam ba localiser mm-hmm. le gars il s'appelle Daouda Diallo mm-hmm. c'est un Guinéen boo xamante ne ni mu ngi dëkk Tamba di dugg fi nga xamante ne moom moo di Ziguinchor par rapport ak localisation boobu la ndawal section de recherche def seen liggéey ba teg ko loxo. Hmm. ba ñu ko tegee loxo tamit dañu jàpp waa ji li muy dugg Ziguinchor ak di génn bari na te ay cas de viol liñ ko fay signalé bari na léegi ci lañ woowaatee ñi nga xamante ne ñëwoon nañ def seen déclaration ne dañ leen viole mooy sànq bi mu ngi ko doon liir. mooy jigéen ñooñu nga xamante ni toll nañ ci limu fukk police da leen a woowaat. Mhm. ba ñu ñëwee dañu identifier la gaa kii moo nekk seen violeur. Mhm. kon il est habitué des faits. Mhm. ba pare tourné rey ki nga xamante ne ni moom moo di Awa Cissé ba ñu ko yóbbuwaatee muy def récon euh, la réconciliation des faits mbir ma na mu demee. ak na mu ko reyee dafa taxaw avoué lépp ba wax viol yi nga xamante ne. teg na ko ci kaw xale jigéen ñi. kooku man damay ñëw rejoindre li nga xamante ko di peine de mort ci moom mhm. parce que viol mënuñu ko criminaliser mu nekk dix ans mhm. nga violé fukki jigéen pare mhm. rey nit te reyul benn ñaari bakkan la rey kooku li waroon xam nga mooy lan solal ko kagul teg ko ci digg penc bi dóor ko bal mu dee loolu mooy lii dëgg Ouzin nañu bàyyi bakkanu doomu aadama yi ñuy banaliser comme sa di ko banal di ko ba imagineel jigéen ju ëmb amoo ci benn yërmande nga tiim di ko bojj ay paaka ba mu ñàkk bakkanam rawatina ci kanamu ñaari doomam xale yooyu psychologiquement bu ñu màggee lan la ñu war a dafa am yoo xamante ne nii dafa métti taw waruñu ko bàyyi kon mm. peine de ci yu mel nii sàkku naa bu baax a baax a baax ñu indi ko ci sans réserve nag nañ mm-hmm. indi ci peine de ci kaay yi mm-hmm. na peine de mort ñëw rek ñu door ko mm-hmm. ci di la jaajëfal bu baax a baax Ousin Ndiaye di jaajëfal Bilia jaajëfal Abdou Nguer mboolem internaute boo xamante ne mu ngi doon ñuy suivre seen émission teraanga matinale di leen jox dig daje xibaar yi ci digg bëccëg ci kàllaamay Kocc Barma merci et au revoir waaw di ko ñaawlu bu baax a baax rek. Mm-hmm. ndax euh, Ousain Ndiaye. Mm-hmm. Euh, Daouda Diallo mi def li ni mel moom yaakaar naa ni kenn warul teg ci moom sax naan ko tëddal dix ans ba vingt ans wala nga tëdd sa sa dund gi yëpp nga tëdd ko prison ndax boobaa day lekk di mm-hmm. naan. di fa dund su ñu koy woo ay mbokkam di ko fa seet si di ko rendre visite mu ku mu woo dalay woo téléphone lu mu soxla danga nga koy indi ci prison ba kon moom xañoo ko lu baree bëri. ñim violé ñim violé. xam nga ñi ñi mu ñu jiitu ñaata jigéen. Mhm. ñoo xam dem ba violé koo xamante ni sax ab Sierra Leonaise la. Mhm. loolu dafa ñaaw koo xamante ni yow yaa ngi violé di teg di teg mooy ñi ma mhm. lim sànk yépp ñoom ñooñu dañoo ne moom moo leen violé tey nga dem ba ci Awa Cissé nga faat ko te mi ngi nekk ci ci ëmb xanaa nga waroon a sax am yërmande mais ba pare nga def ko ci kanamuy doomam doom yooyu nan lañ nar a màggaale bu dee bu dee mën ñoom gis nañu activité xam nga tey jii nii ñoo ngi fooyee loo xamante ne nit toog na moom moo reconnaître les faits moom moo hmm. rey moom moo def lii rangu na tamit viol yi moom la léegi nañ ko jël fat ko ci kaso bi loolu day yombu Ouzin hmm. daa fat bakkan ba pare ñaar la fat hmm. ëlbatiku violé ñaata jigéen ak viol ni mu xam nga viol li ñu ngi koy foowee ci réew moo xam ne réewum Sénégal moom dañoo banaliser viol te doon na loo xamante ne day des si dund jigéen jigéen de dundaale violam ba keroog muy faatu yàllaaw amul leneen ñu viole ko. dafa ay séquelles yoo xam day des ci moom. Mhm. man viol ni ñu ko banaliser ci réew mi waroon war nañ cee tegaat ay points yoo xamante ni ba viol dootuñ ko banaliser ci réew mi. Mhm. mais léegi lu naay lu waay lu waay neex def ci kaw viol. Mhm. léegi dañuy viole su ñu ne nañ ko nëpp nëppal bu ñu ko yóbbu ci yoon. léegi xale bu jigéen boobu noonu da xam lan moo ko ciy topp ëllëg xale bu jigéen bi mën cee jëlee ay dépression. mën cee jëlee traumatisme yooyu yëpp ñu koy bàyyee noonu. war nañoo yokkaat dix ans sax dafa mhm. ndaw ci viole viol mhm. dix ans yi da ndaw boo violé dañ laa war a tëj sa àdduna bu doo dootoo génnati boo reyee moom dañ laa war a rey Ouzin mhm. dañ koy diwaat ci réew mi peine de mort moom dañ ko war a indiwaat Ouzin peine de mort dañ ko war a indiwaat merci beaucoup Bilia euh, seen Thiali euh, la jaajëfal Ouzin mais Abdou euh, bàyyi la nga tàggatoo mais du ñàkk di nga féliciter sa frère yi nga xamante ni ñu ngi ñu ngi doon def bac ñi si jàll ak ñi nga encourage ñi si jàllul waaw yàlla na ki na jangay jot sa wërsëg rek. Hmm. affaire yi mu wërsëg nit am na bag te tekkiwul ci bagam boobu. nit ñàkk na bag tekki. Hmm. boo doon wër fii ñi fi gën a tekki jànguñu genn wàll gi sax. milliardaires ñi fëpp xaalis fii. Hmm. seen i éthique àggul foofu. te bag xaalis rek lañ ciy wët. waaw maa ngi gis nag benn booy koy félicité naan waaw am na bac mention Ousmane Sonko baayam nangam nangam daaw amul woon ren papa ministre la am na est-ce que jaruñu ubbi ci commission d'enquête. mais Bamba ba mu nekkee ministre les trois mois lay. diri naa est-ce que jarul ubbi nga cee jënd ay preuve te ay preuve yi fuité na lu ne mën na cee xew mbirum daal mbir moomu daal mu ngi noonu. waaye nag waroon nañ am kersa di publier diplôme boobu ndax baayam dafa wax ay bakkan yu bari faatu doomam moom examen am bac ñi dee maa leen jox message boobu perte ngeen de kee moom boo moom làq na ko fe ma ngay diplôme moo ko feetu. tax a yaataay mais daaw lu ko teree am bac mën na jàpp ne ñu barricade woon. papa dara terewul ko am bac daa jàngut. ah daaw wuñ. ren kasaalika sañ naa ci def recours. photo bi. diplôme bi bii sañ naa ci def recours. comme épreuve yi na. te donc Ousmane am. Mm-hmm. sama xel tey na ci. li nga wax gànnaar de laa yem daal. eh déet dafa yem dañuy na. donc Ousmane am na. <laughs> xam nga ne ñii nguur fiit la PV bi fiite na rapport bi fuité na enquête gendarmerie fuité na xam nga ne bu ñëwee nag épreuve fii mën na fiite lii nguur fuite la. dara da ngaa bëgg wax yow. épreuve nguuru fuite la. da ngaa bëgg wax bagu booy bi si la bokk. mën na ci ne. commission da cee laaj ubbi commission ak gis nga booy yi ñu jàpp seen groupe whatsapp noonu même booy bi dañ ko war a woo auditionné ko. yow booy bi papa mën ko fayal. oh, oh li nga waxuma ko de ñee seen papa dañ ko jàngal. booy yi ñu arrêté nii. Ah. xaaj bi ay enfant seen papa day def ci ñoom lu bari ay école privée sax lañ doon jàngee tey ñu ngi ne ñu arrêté leen. Mm-hmm. kii fu mu doon jàngee école privée la doon jàngee. école ba muy jàngee man xam naa xale yu bare bari yu fay jàngee. Mm-hmm. yoo xam ne seen papa ni Ousmane Sonko la may borom barke la. Mm-hmm. waaye lu ko ko xañ daaw moo ko mbir mi daal nañ def nañ ci ubbi commission d' enquête. yàlla gëmoo ba mu gendarmerie ñu woolu ko. kii mention la demee. du amee ba mooy mooy danger bi. nu mu nekkee danger bi. Ah, waaye yow dimbali bi mais ko nangu. nangu ma lu ndax daa bakkan yu wàcc te baayam tax ñu wàcc kii warul woon dañ ko waroon a nëbb sax warul di génn ay moroomam rek dee nag daa waroon a am jom deewaale comme ay moroomam di. ah si wadal wax ñu nag suñu antenne bi tamit. non si mais mën wax mais. man sama papa man sama papa laa wax bu génnee. Ah. sama papa bu génnee génnee gone ñu dee man dinaa dem dee man. parce que dama xam ne méritotu ma dund. mais daa d'accord ne xëy na am na courage jafe-jafe yu dund. barke courage fii jafe-jafe looloo ko waroon a traumatiser sax moom ba warul am baag. bu dee bu dee am na jaar na yoon ndax dafa waroon am traumatisme ne sama papa dañ ko dafa ko accusé woon de viol mu génne xale yi xale yi dem problème yooyu moo ko war a jàpp ba jàngam sax fa la waroon yàqoo wasalaam. eh taxawal <laughs> mais yow li <laughs> subhanallah buñ jëlee jàpp en tout cas daal euh, doy na waar en ñu ko koy ñaanal euh, suñu euh, suñu rakk jooju ah sa rakk ji muy sànni bu di doom ci Ousmane Sonko dagg bakk ak mention merci beaucoup jaajëf.